nga joxe trophée war joxe guñ ko no joxe guñ ko ñi ngi xaar suspense suspense alors yow gëm nga ne di nga ko jël loolu kenn leen teddu ko <laughs> sénégalais dañoo bëgg nga defal leen benn partie euh, indo comme ni koy def non dang leen di nuyu en inde waaw nuyu mais dum jakk naa ba sahe takku saani he timi sahe ko ñambi ha mais pourquoi sooy indo sa kanam bi triste nii bon indo amour lañuy dund man amour rek les yow qui gisee Peulz Influence Awards voilà affaire beaucoup le normal voilà bo gagner wala ñu dem ne na tax nga gën a travail xam voilà ya ngi def travail bo xam mi ngi feeñ bu baax a baax. et puis voilà c'est cool c'est dope. ya ngi ci gis sa bop wa ñu ngi ciy gis suñu bopp de voilà ça parce que ñi mi ngi wan ne ngi job bu baax a baax a yi bari na naan yi bëri na. waaw man maa bëgg lekk <laughs> mo dem ma amee lekk moom saa lu mu ko dugg dama boobu de <laughs> nañu lekk rek. kon yow nangu nga ni ko fi lekk. ii lekk naa ma wala dix. si <laughs> la bonne soirée. bonne soirée aussi. en tout cas so yaa ma ñëwal.